plan politique te moo wax ne amul président politique au Sénégal moom ak Aïssata Tall Sall lan mooy sa gis-gis sax ci loi d'amnistie parce que ñu bëri dañ jàpp ne président Macky Sall dañ ko war a dem jëli indi ko fii ñëw jugé ko parce que il a fait beaucoup ci askanu Sénégal yow en tant que juriste en tant que avocat que vous êtes est-ce que jàpp nga ne loolu dina war a mun a yomb. yow Bamba en tant que sénégalais yow Bamba en tant que taskatu xibaar. oui en tant que quelqu'un boo xam ni yéen ci ànd information yu ñu amul. yéen ñu koy jox yéen. yéen les journalistes yéen ñuy yow te normal ci pays de la Teranga Sénégal bi ñu xamoon depuis son indépendance ou avant li fi xew au mois de mars deux mille vingt et un ñu convoqué nit ñu dem ba xale yi di manifester ba ñuy wax affaire complot man j'ai été chez Ousmane Sonko au mois de le cinq ou six. oui février. deux mille vingt et un. balaa ñu koy balaa coow li di am. oui demoon nga seeti. boobu coow bi commencé rek. oui j'ai été chez ñu beru ma ne ko Ousmane deux choses le dossier là il est vide ah du wax. oui ubbi leen sama page Facebook non non si si si on s'en rappelle. j'ai le dossier est vide et ça pue le complot je cite les mots parce que j'avais accès je suis <laughs> nu ñu dem ba dem gendarmerie dugg ci dossier bi noonu laa def man tamit dem ba dugg si dossier balaa ma lu may dugg dama koy xam ma gis dossier bi ma ne ko <tsk> kii mun ngeen si la condamné quand il y a doute ça ne peut profiter qu'au prévenu à l'accusé or tey lundi madame euh, dame bi lii la wax mardi lii leneen la wax la contraire le doute profite à qui sur des choses assez sensibles ci xale boo xam dafa ñëw ne beneen xaritam bu jigéen génnal waaye bàyyi mag waa ji soo ragalee waa ji doo ko bàyyi doo nekk seul avec moom donc y' a pas de contrainte y' a pas de forçage et c' complot. ñi doon dawal oto bi pour ji indi xale bi yóbbu ko yëpp xam na ñan la ci bëri kër koo xam ne mënul sax bind turam mën a rédiger une plainte pénale en visant les articles sur le viol man mi sax le droit sénégalais pour mooy xool article bi dama ko ñëw xoolaat parce que bu droit français laa gën a maîtriser mu def ko loolu lépp am na ko bind si ginnaaw oui ou non ñu wax ne quoi. maintenant il fallait ñu bëgg a rendre inéligible quelqu'un ok c'est pourquoi mmh. moi je trouve que euh, ce qui s'est passé ba ñu rey fii dans une convocation de Ousmane ko rey fii plus de vingt personnes oui. minimum ñoo xam ne kenn gisu si kenn mu yore fetal boo ko gisee ko jox ma kenn gisu si kenn ku yore jaasi wala paaka gis nañu ay xale yore ay bant yore ay xeer di manifeste di xeexante policiers ci mbedd bi gis nga gis naa ko en face ñu gis ay nit yor ay pick-up banalisé ay nervi te président Macky Sall dafa ne woon bëggul nervi parce que demoon na ci kër Diaz maa moom ñoo àndoon Papa Diaz en 2011. oui ne nervi mu fi am. oui c'est des milices moom ñu gis ko ay nervi c'est la route de Matam c'est la route de Kédougou euh, Koungheul ñuy dóor ñi ñi. ñuy dugg ci biir permanence bi ak ay pick-up yoo xam ni banalisé mooy amul plaque yore ay bant di door ñit ñi kooku c'était la convocation d'Ousmane Sonko lorsque le jugement est tombé au mois de juin. oui 2023 du ay bant la ñu gis ak ay pick-up ah. gis ay nit en civil yore ko y compris le numéro 9 boobu noonu. oui te ku yore suñu sécurité suñu kaaraange. c'est le président Macky Sall nous sommes dans un régime purement présidentialiste xale yorey xeer ñuy leen di tirer ay balles réelles waxuma balle blanc nekk ñu en état de guerre nii de guerre civile am na ko am sama buntu permanence lañ ko rey policier boobu laa teg ci kaw oto bi tirer jot booy bi vous l'avez vu. permanence à part xale boobu est-ce que dafa yore woon loo xam dafa dangereux non loolu am. ay gendarmes disparaître dans des conditions nébuleuses. loolu am nga jël nit dindi ko nga ni entre guillemets dindi ko armée indi ko sa wet dàq Jean Baptiste Tine parce que du tirer sur la population teg ki nga xam ni bu ñu nee un mu ni dix-huit Moussa Fall nga ni da nga ko détaché indi ko ci yow boobu ngay waaj a dem nga ni da koy delloo à l'armée alors le gars n'a jamais quitté l'armée un gendarme c'est un militaire. oui fon da ko utiliser da ko mooy soxla woon naa ko utiliser ko pare ba nga koy delloo quoi pare na ci. ñoom ñëpp ministre de l'intérieur nu tudd. Félix Antoine Diome. genre ñoom ñëpp di ñi ci nekk ñoom ñëpp bàyyi tout ce qui s'est passé là. dañ leen war a woo juge leen. y compris celui qui était leur patron à moom dañu jotee les instructions président Macky Sall dafa newoon lan. ce qui s'est passé en mars 2021 ne se reproduira, ne se reproduira pas. Ouais. Vous voir. Ouais. Vous voir, moi je vais me réarmer. Il réarmé. ci réarmement bi j'ai j'ai parlé des armes non. ñu tëj ma ci. oui ku mujj am raison. preuve yu ma teg je parle commissaire ñu ngi lay dégg les cinq ou six qui étaient devant moi à la sûreté urbaine guddi guddi neuf bi guddi onze bi ñu ma téye preuve yu ma leen jox jël nañu lu xool yéeg wàcc kii yëpp. ne ma c'est des documents authentiques. c'est des documents authentiques armes à livrer au palais lañ ci bind. destinataire deux points palais de la république kan lañ far a contact deux Biram Koulibaly numéro de portable. oui est de presse bi. ma ne il l'a dit mais man mu koy wax. wax naa ko pare après ba mu ñu tamit dégg naa ko mu wax ci. ñu ni camion yu jël jëli armes yi cent cinq tonnes au port cinq cinq chauffeurs la.

destinataire pallidaire bi xanaa dañu nekkoon Haïti les ministres là de tonton Macoute la. <laughs> un pouvoir s'en day dem un état reste. Oui. le pouvoir n'a pas la possibilité juridiquement d'acheter de armes ils l'ont fait ñu jógati foofu des armes ont été achetées ci aw ministère de l'environnement non. oui qui de débats. ak pick-up yoo xam ne ñu ngi doon gis yëpp. ñu ngi doon gis nii ci foofu la euh, jógee. léegi nag. le premier ministre nee moom boobu daf ko intéressé ak le petit boubé. dossier boobu la oui oui dañ ko lancé mandat d'arrêt je pense. kan moo signé dossier bi. ko lancé mandat d'arrêt ñooñu ko signé ils vont leur responsabilité engagée. def secret défense. c'est le ministre de l'environnement Abdou Karim. oui Sall. ak kan ministre des finances de l'époque Abdoulaye Daouda Diallo. daañu wax ne ana armée maître. Euh, li ma lay wax nii si. li non si mais. li ma lay wax bagage yi non non gis naa gis naa gis naa bagage yi loolu kay du problème. du ma waxoon mais mais aussi. gars yi nekkan mooy Anita Diop quoi gis nga sax coow li ci am actuellement ab nit mën a filmer Ousmane ko ci benn escadron wala ci benn oto gendarme ñu gis également.